bu dee nag duudu ci ci bi boppam. man xamoon naa ne dana songaat Sonko. ah duudu ka xamoon lu tax duudu maanaam dañ ne muus. boo tegoon fii sa boolub yàpp. mu ñëw jël ci wenn yàpp daw di ko lekk. Ah, jëru dàqi xaaraat ko ci palaat bi rek dina del si. Hmm. <laughs> duudu ka daa ñëw. politique na fi lu yàgg lu ne def na ko. <laughs> kenn xamu ko. waaw dëgg bi mu ñëwee dugganteeg Sonko. Mhm. maanaam ci une semaine boobu gis na ne moom. Hmm. maanaam sangoo bay reek takki bay reek lépp maanaam ndekete dugg ci caaye sonko ji moo ko gën a gaaw ci bay reek <laughs> léegi nag jël na benn yax dem ah. parce que am na fi conférence de presse journaliste yëpp di ko wër ba ci gis nga keroog forom fànce ah. te xam nga ne Pape Ngagne Ndiaye <laughs> du du kadu client ah, maanaam bu dara xewut waaw Ka du client mhm. maanaam affronté Sonko moo tax Pape Ngagne man koo jël waaw indi ko ci palaato te plateau boobu mhm. plateau la boo xam ne jàpp naa ne bi gën a sérieux mhm. gën a jàll ci ci ci ci plateau Sénégal yi ci ci la bokk bu fa Doudou Ka amee dana ah li kat maa ngi ko am grâce à Sonko waaw comme léegi jël naa benn yax seeñu naa ko ba mu jeex xaaral ma dem wutaat beneen yax loolu moom lay andi <laughs> mais moom am na lu mu war a moytu mooy mënta Doudou Ka mënta nekk mm. rek euh, maanaam jiitu AIDB. waaw mooy euh, euh, aéroport benn bi nekk Sénégal fii moo nekk njiit li mooy moo yor lépp. waaw Sonko mii. buy tukki ci aéro avion lay jaar. day voya buy voyage ci avion lay jaar buy ñibbisi ci Sénégal ci avion lay jaar. waaw mënoo noonoog. Mhm. deuxième personnalité. ci wàllu politique ci Sénégal. nga xam ne dañ koy fexeel ba noppi nga wan koog noonoo ba noppi. Mhm. bëgg yoraat. kaaraangeem ca aéroport ba su boobaa moom mii liggéeyam sax dafay dem ba nekk en danger mm. te su ko defaatee defaat ko Sonko mën naa taxaw sax réclamer ñu dàq ko parce su boobaa mm. lu fa dal Sonko ëllëg ci affaire avion mm-hmm. dañ naan waa état bi la parce que Doudou Ka mooy noonam c'est vrai waa waa Pastef yi muy xeexal tamit mm-hmm. su ñuy tukki ci mm. aéroport bi la ñuy wàcc su ñuy dem fi la jaar te nag moom mënoo noonoo nit ba àgg fenn fi ba pare mm-hmm. wëlbatiku bëgg nag saa buy sa loxo saa buy ñëw jaar ci sa loxo su moom liggéeyam bii mu yor sax mën naa dem ba ñàkk ko ci mën naa dem ba ñàkk ko ci mm. te loolu na ko bàyyi xel na xam ne moom violence moom waru ko moom na na na ko teg ci suuf te liggéeyal Sénégal mm. moom moo gën nii mu bëgg a doxale